audition yi nga xam ne Ndeye Khady def na ko moom ci boppam nee na bi muy ne bi ñu koy njëkk jàpp yóbbu ko section de recherche Mamour Diallo da ko woon ne ko proposé naa la quarante millions nga changé sa version mu ne ko def ma ko mu proposé leen ba benn saa mu ne ko kon jox naa la deux cent millions nga changé sa version pour enfoncer Ousmane Sonko ndaw si diiña ngoog bëgg nañu rey sa doom proposé nañ la xaalis menacé nañ la toj nañ sa bopp jëkkër nga am sa dignité ne lii duma ci dugg parce que lu dul dëgg duma ci ànd kenn waaye yéen ñëpp nag dégg ngeen enregistrement boo xam ne Mamour Diallo ak plaignante bi Adji Sarr ñoo toog di wax mu naan ko li nga digoon yëpp dinañ ko def bu procès bi rombee dinañ la jox sa visa ak sa passeport ak li ñu la waxoon yëpp nga génn réew xam nga loolu du lu ñuy werante man li ma wax yépp dama ay évidence la ay preuve te kenn tegalaguma benn preuve ci ñoom li ñuy wax moo tax ma ne dossier bi jeex na bu yàgg wax jee bëri rek maître Gabisso bi nga xam ne nag goro la ci Mamour Diallo gorom la maître Gabisso boobu bi mbir mi amee dafa ne moom yéegul tinul ñu dem ba ci biir mu ne 15 jours avant les faits recevoir naa xale bu jigéen bi jox ko ay conseil ñu doxati gynécologue bi bi mu demee doyen des juges intéressé ko ci PV bi dafa ne maître Gabisso moo ko woo la veille le premier ne ko est suba di nga nekk Dakar mu ne ko waaw mu ne ko déglu ma la lendemain mu xëy ba guddi waa ji woo ko ne ko dafa am xale bu jigéen bu am problème sàngam sàngam damaa bëgg nga dem jëli ko mu ne man bëgguma moom sax waaye dañ ko ne xale bi fi mu ne nii mi ngi diggante dee ak dund soo demul du baax comme la bu ne su ma demul mun nañ ma ne assistance à personne en danger non assistance à personne en danger mais nag bi ma demee ba foofu biñ ma andi leen ndaw si dama leen ne kii na kii ngeen naa mi ngi diggante dund ak dee kon moom ci ñu ràbb affaire bi la ci diggante mag Mamour Diallo ak lu ñu séq te loolu mi ngi ci dossier bi juge bi gis na ko. maître Dior jaan bi nga xam ne mooy soxnay Antoine Diop yéen ñëpp gis ngeen li mu njëkk a rëccal te tey mu indi problème ci biir baro bi ba tax duma ci sori waaye Sénégal yëpp gisoon nañ wax mbir mi naka la war a demee bu leen ko tëj bu leen ko jàpp na ngeen def nii dañ fexe ba procès am rek ñu fexe ba yàq daram ngeen bàyyi ko mu ñibbi mooy plan bi rek ñoom Antoine Diop moom moom ak keneen ak keneen waaye moom it seede am na ni bés ba moom moo àndoon ak ndaw si ne da koy yóbbu section de recherche ba fekk fa ndey xadi menacé ko ne ko da ngay dof doflu boo deful li dinañ dinañ la rey kon moom it ci complot bi la bokk kon yii yëpp dañ koo andi ak ay firnde jox ko doyen des juges ne ko bindal jox ko papier yi koy wone ak preuve yi teg li gën a neex gis nga nee naa leen audience bi man maa ko guddal ndax mënoon na durer quinze minutes waaw may laaj sénégalais yi nag dossier bi ni mel yow jiiñ lañ la nga jiiñaate li nga jiiñaate yépp nga am ay preuve yoo teg te wax naa ko doyen des juges nee naa ko yow fi mu ne nii say enquête xam nga fan nga ko war a orienté mooy ñi def complot bi te ci lu ëpp ci li muy def actuellement loolu la parce que amul beneen pexe ñu ne ko ñu def complot bi fàttale naa ko li ñuy tuddee scandale Watergate États-Unis defe naa ñëpp dégg nañ ko lan moo doon Watergate mooy ñi yoroon nguur gi dañu nasoon benn complot contre opposition complot bi mujj éclaté waaye complot boobu moo mujj yóbbu. ba président Nixon mujj démissionné ma ne ko foofu nga war a yóbbu comme euh, sa enquête ndax amoo dara ci viol amoo dara ci agression amoo dara ci menace de mort benn firnde bu mën a tegal ci table bi amul léegi nag ku lay jiiñ mënul andi preuve est yaa koy jox preuve ku la jiiñ mënul andi benn preuve benn question la ma juge bi laaj mooy est-ce que di nangu joxe sa deret pour ñu def test ADN ñi kilifa yi toll nii yëpp daje def seen complot ba fi sele ko complot bi claté yàqu amuñu lenn lu ñu mën a teg ci table bi ñu ne man ma jox leen sama deret man Ousmane Sonko ñu yóbbu ko xaw ma fan daal génn ne ah conclusion yi mooy lii may leen ngeen dem jëli deretu Bob Marley de deret man mii ilaa yow mi din du ngeen ci jot sama tuflit sax du ngeen ci jot waxuma laa sama deret parce que ñàkk mu ful la ba foofu su dee dossier bi yépp loolu moo ci des jox mi sa deret ñu dem daje ak xawma kan yóbbu ko ay France ak fu kenn xamul ñëw ne ah lii lii daje na wala lii dajewu kon de xam ngeen ni seen dossier jeex na ndax su dossier bi desee desee lu dul jox ma sa deret jox ma la sa deret na tëj bi te ubbi dossier complot bi du am lu toll nit toq ci sama deret ndax benn su dossier bi sax doon dossier bu évident amul lenn lu ma tënk ci loi Sénégal pour ma joxe sama deret loi dafa nekk nit parce que loolu du preuve du preuve bu mat moo tax loi imposé wu ko nit dafa ne nit ki su neexee su ko neexee mu joxe deretam su ko neexee du joxe dossier boo xam ne damaa ëmb deux ans plus tard wasin amul damaal yi fen yi fen yi fen suñ ko génne woon dëkk bi <laughs> fen dootul des ci dëkk bi nga naan nit ki jox ma sa deret ma ne doyen des juges sa juróom fukki xel bu mu xalaat ma jox la sa deret ma jox la sama deret comploteurs yi su dee nee nañ dañoo def prélèvement fan la président prélèvement bi dem Abdou Mbengue moo ko yor ak Basirou Gueye ñoom ñu doon complot yor seen prélèvement mën ko substituer lu leen neex mun def lu leen neex ñu ne ma jox ma ba ñu defee dañu yóbbu benn benn clinique kooku ne leen mënu ma def analyse yi parce que jamono ji amuñu produit loolu yëpp mu ngi ci dossier bi ñu wëlbatikuwaat dem yi beneen docteur bu jigéen kooku ne ah dinaa ko mën a def de waaye il faut ma yónnee ko fu ñu koy defee te ensuite suñu amul luñ koy comparer mënuñu dem fenn man ñàkk naa fulla ba jël sama deret naan maa ngi koy jox Serigne Bassirou Gueye ak Abdou Mbeng ak doyen des juges ak xawma kan may leen loolu du am dossier bi foofu la jeexe jox ma sa deret du ma la jox sa deret sama deret dossier ba jeex na kon ñaareelu laaj bi ma laaj mooy ndax séq nga ak ndaw si dara ma ne kon je ne te pas nga poser ma cette question que ce soit la dernière fois du ko nangu ndax sama dignité teg sama intimité ci dossier complot mel nii mayuma kenn mu ciy wax man dans 16 mois ñaan naa yàlla nekk président la république du Sénégal boo amee sa preuve génneel boo amul toppal na leen ñetteel bi mooy ndax reconnaître nga dem nga fa ak yan nga fa dem ma ne ko sëñ bi man du ma toog ci mbedd mi fu ma dugg daal di bind date bi dugg naa fi daan naa fa dem moom wax naa ko ñëpp dégg ko. waaye ban date la ak ban date ak ban heure jàpp ko ñetti questions yi dina ma doyen des juges posé amul beneen ñetti question la ma posé amul beneen la ca des yëpp mooy li ma wax man te mu feeñ te muy ay preuve yu leer bi mu paree ñetti question yi la pare ci affaire bi moom bi procureur jëlee kàddu ne day laaj may laaj Sénégalais yi parquet bu bokk ci complot bi est-ce que man war naa toog di di tontu ay question ñu ne fàng parce que administration continuité la c'est le même parquet ñoom tey ñooy def poursuite yi sur la base de ce que Bassirou Gueye a laissé ici moo tax dossier bi juge bu jaaree yoon bu matee juge bés bi ma déglu lendemain la war a clôturer dossier bi def classement sans suite parce que amul dossier et il ca des yëpp wax yaakaar ni mën nga yàq deru nit tey laa gën a siiw ci Sénégal yi tey laa gën a dëgër tey laa gën a am ndax bi ñu commencé wax ba léegi ah su ma génnoon fii ngeen gis de te ñaari élection jaar na fi te gis ngeen samay campagne kon ñu ngi sant yàlla kon échec total la dégg naa nag ñu wax ci lu bëri nee nañu dama doon